ndaxte ñun ay jullit lañ dañ jóge ci yàlla subhaanahu wa taala ci moom lañuy ñuy dellu euh, kon tey bu ñu ñëwee fii ñun ñëpp ku ne gis mbooloo mu takk mi nga xam ne ñoo ñëw gunge imam daw imam ndaw di ko sore ci ñun parce que nag imam euh, dafa nekk nitu yàlla koo xam ne dafa dundal diine ji tàggat ay taalibeem lekk lu lew di jaamu yàlla di defar ay nit rafetu tànk ba ñoom ñu dem di defar ñeneen ñoo xam ne ci loxo imam Ndao lan jaar loo ne jaar fi nag loo xam ne xëy na tey du waxam lu ci bari daan ci indi ay leeral ndax euh, wax bu nekk dañuy xaar ba mu jot ñu wax ko waaye tey li ñu fi indi rek mooy ñu ñëw gunge imam Ndao wane ni tey ñàkk nañ ko mag ci ñun ndaxte bu fekkoon te ni alal mooy tax du dee kon imam ndaw tey du dem ndaxte waajaloon nañ sénégalais yi ci seen cofeel ak xam li imam Ndaw liggéeyal diine pare woon nañ pour ku ci nekk nga génn li nga yor ñu yóbbu imaam Ndaw euh, bitim réew bu ko defee euh, ñu mën koo ñu mën koo faj ndaxte feebar ku ko def faju yéen ji àgg na parce que sénégalais yi ñëpp mobilisé wu ci benn fan ñu dajale loo xam ne jàpp naa ne euh, bariwul ko mën a dajale Sénégal ci lu matul wax ci matul benn bis loolu lépp nag bi ñu ko amee ndeke booba yàllaa ngi ñëw ak dogalam yàlla dogal ni tey du fanaan danañ ko denc kon liggéeyam mat na ñun ñoo des li ñu koy ñaanal rek mooy yàlla yàlla na xippee àjjana moom moom moom yàlla na ko yàlla xaare àjjana te liggéey na fi lu tax ñu am yaakaar ci moom ndaxte Imam liggéey dong la fi def def fi leneen liggéeyal yàlla wéetal yàlla defar ay nit defar ay tuut tànk bay di dunde di lekk lu lew état mun su koo jox dërëm bitim réew kenn mus koo jox dërëm naam am na loo xam ne doxoon na fi ci ginnaaw nee naa la waxam jotul tey daan ci ñëw bis bu jotee mais li ñu bëgg a wax foofu mooy sant nañ yàlla ndax li ko gunge tey bëri na ko amul tur te génn te amoo mbooloo mu dol nii parce que nit ñi képp ku àggul fenn fi ci ñoom jaraloo leen yàq seen temps kon tey jii ñëpp mobilisé wu ñëw gunge nii Imam Ndao nit ñi ku ci nekk nga xool xar kanam xam ne tey yëg na métti ndaxte bu ñu fekkoonte ñun rek la dépendre kon imaam du dem kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di sant yàlla également ci lii nu fi gis ndaxte ñun imaam dañoo am ak cofeel ci moom goo xam ne daf ñu ko doon delloo man daaw ma toog du lu ma lu may wax waaye am na émission yu bëri yoo xam sax bu ñu daan daje bu ñu waxee ñun ñaar rek nga xam ne ñii am lu ñu seq parce que imaam nit ku baax ku bu génnee àdduna ku nekk da ngay defe yow la gën a jege. man nii mu mel ci man noonu la mel ci ñeneen ñoo xam ne dama leen a xam am ñoo xam ne man xaw ma leen mais li ma leer mooy imaam yàgg na maa digal nekkuma ci daaraam mais yàgg na ma euh, teg ci yoon su déggee ma wax loo xam ne d'accord ci dana ma woo ne ma defeel nii defeel ne toujours daan na ma ñaax ci yoon wi ma nekk ne ma yii yoon wi nga nekk bu la ci dara jëlee ndaxte yoon wu dëgg la te dëgg mooy mujj yàgg nañoo bokk ay waxtaan ñu invité ko conférence ma dem toog ak moom ci wetam modéreel ko conférence am yàgg nañoo def loolu mag imam Ndao yàgg nañoo boole mag bokk mag moom également ay émission yoo xam ni dañuy toog di waxtaan ci loo xam ni ci réew mi la jëm te imam euh, imam Ndao luy defar dong ko taxoon jóg parce que nit la doon defar te jaamu yàlla donc ñun dañuy sant yàlla ndaxte lii nga xam ne gis nañ ko fi tey doy nañu sëkk imam ndaw am nañ ci moom yaakaar ndaxte imam Ndao jaamukatu yàlla bu wër la man bi ma xamante moom yàggul xëy na ci coowam yi lañ xamante bi mu génnee ak activités yi mos a ànd bari na ba ci biir ànd sàmm jikko yi ba ci dañ defee ay délégation di dem Touba ci biir imam yi ba may tooñ bu manee man du ma imam ñaar fukki imam ak ñeent ànd dem seeti sëñ Mountakha ba Bachir di ko euh, sargal ci wax ju rafet jam waxoon ci xale na sëriñ daara bañ tëjoon ndax jéng ba mu jéngoon euh, ab ab taalibeem boo xam si daa tëwoon mu bëgg koo defar ñoo xam ne dañoo tënku ci ay diine euh, nasaraan yi mooy diine euh, kàccoor ñëw taxaw bëgg a tëj sunub imam ñoom imam yëpp ànd di dem sargali sëñ Muntaxa ndax wax jam waxoon ni nan génne imam bi buñ ko génnewul dana woote ca Touba ñëpp dem taxawoon jour boobu mag imam Ndaw ñoo dend fépp fu ñu dem ñoo doon toog mu ne ma sëñ daam lii kët tànk yii nga nga taxaw nii bu la ci dara jóge jële donc ndaxte euh, ab jullit day taxaw ci lu baax kon nag imam Ndaw moom loolu lañ séqante maak moom am na leneen ak leneen lu ñu séqante loolu maak moom la parce que man xam naa imam ci cofeel gum amoon ci ñun dem nañ ba fekk ko euh, ci ci ci daaraam bataay pour waxtaan ak moom kon nag ñu ngi sant yàlla euh, di euh, am yaakaar ci ni lii nu fi gis tey xool yi tooy na parce que imam ndaw wax dëgg yàlla ku ko ñàkk ñàkk nga lu rëy rëy ñun tey ji man biñ ma ko waxee mi ngi ma fekk ngumba ngeewul ma demoon foofu pour sama benn mbokk mu feebar moo waroon a jëli tey jii lan ko waroon a yóbbu Dakar mais imam ndaw moo tax ma ne leen fomb naa mënatuma yóbbu kooku naxaar ba suba bu ma demee cero rob ba ba pare delluwaat Louga doog koy mën a jëli incha allah kon nag loolu parce que imam du ma dégg mukk ni euh, yaramam suteen sutante na may taxaw di xaar bi ma ko déggee ñuy waxtaan ci ni ñuy def euh, laa ne euh, malade bi ah neel sa médecin na gaaw parce que man fokk ma dellu ndakaaru jàppoon nañ ni waajal pour yóbbu ko bitim réew loolu lañ gisoon ñun ndeke booba yàllaa ngi ñëw ak dogalam dañ koy nangu nag ndax ay jullit nañ te imaam daf ñoo mës a tàggat ñun ñëpp ci ragal yàlla boo ragalee yàlla nag bu yàlla dogalee da nangu kon ñun nangu nañ lii yàlla dogal waaye nag comme ni mu ko waxee bés bu wax jotee dana am loo xam ta ñàkk dinañ ko wax incha allah donc ñoo ngi sant di gërëm di ñaan ñëpp ñi nga xam ñëw nañ fi ku ci nekk li tànk yi nga fi ñëwee muy tànk yiw donc yàlla na ko yàlla defal ay tuyaaba ñëpp ñu fi ñëw di tuut tànk ak ay mag ay muskalaf ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla saxal seen diine parce que diine rek moo fi andi nit ñi cofeel rek moo fi andi nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu génnoon àdduna tey du jaral nit ñu dajale mbooloo mu dal kon mbooloo mu dal day nii nit yàlla rek moo ko mën a dajale kon nag ñu ngi sant loolu di sant eh, yàlla subhaanahu wa taala ci dogal bi mu dogal ci imam te jàpp nañ ni moo gën ci imam Ndaw ndax jàpp nañ ni ñun imam daw liggéey na fi loo xam ne mën nañoo yaakaar ci moom yërmande yàlla subhaanahu wa taala donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp